Islam, Islam, moy tariqa tariqa tariqa moy Islam? bu fekke ñu japp tariqa xam nañ tariqa bu fekke ñu japp tariqa xam nañ tariqa tariqa tariqa moy yoon wu jëm ci yalla moy yoon wu jëm ci yalla bo topé tali bi bo topé tali bi dem kaw dem kaw lak bo fi jógee bo fi jógee dem rafé dem ñe bu la neexee nga dem ba ñoro bu la neexee nga dem ba ñoro nga dem kafri dem kafri jógee fa. jógee fa ñëw kaw ñëw kaw la. waaye namu namu namu bi julli. julli. joxe asaka. joxe asaka. war weeru koor. war weeru koor. aj màkka boo ko mënee. aj màkka boo ko mom la fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi. la fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi. ak alxuraan. kon lo indi tarixa. mune ne kon lu indi tarixa. yonent mune sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. borom xam-xam yi jang sama diini borom xam-xam yi jang sama diini te djub te djub te selal te selal ñom ñoy sama ndon te ñom ñom ñoy ñoy sama ndon borom kër gu dem. borom kër gu dem. wut ci fa ndon mu ci fa ndon benn muy doom benn muy doom wala jarbaat wala jarbaat yonentu xamul loolu mu ne yonentu xamul loolu waaye li mu xam waaye li mu xam mooy ñi jàng ñi mooy ñi jàng am xam-xam am xam-xam te jub te jub tënku ci lislaam te tënku ci lislaam tënku ci ay waxam tënku ci ay waxam di bàyyi def ay ndigalam di def ay ndigalam di bàyyi ay tereem bàyyi ay tereem yonentu mu ne ñooñu ko doon yonentu mu ne ñoo ko doon ñooñu ko doon nag ñooñu ko doon nag ñun ci lañ jàpp ñooy suñuy sëriñ ñun ci lañ jàpp ñooy suñuy sëriñ kon ku leen jàpp mu ne kon bu leen jàpp rangal leen rangal leen nangul leen nangul leen topp leen topp leen liggéeyal leen liggéeyal leen yonent nga liggéeyal yonent nga liggéeyal sallallahu alayhi wa sallam ñii ñu nag bi ñu ñëwee mu ne ñooñu nag bi ñëwee xam ne ñi ñu fokk ñu yar leen xam ne ñi ñi fokk ñu yar leen ñu sos lan tarixa ñu sos tarixa